gestion des finances publiques donc de l'ancien régime mais le gouvernement a, a tenu debout et a au régime mais le gouvernement a, a tenu debout et a euh, ñenn ñi nga ñoom la ñu yoreloon xaalis notamment ci wàllum semence yi mm-hmm. bu ñëwee tey ñu def campagne électorale bu nga xam ne c'est que signifie cette victoire pour yéen non cette victoire vient achever un, euh, un processus processus bi nga xam ne euh, ci lu porteur de projet politique et de développement pour un Sénégal souverain Ousmane Sonko jàpp naa ne ci élan et de développement pour un Sénégal souverain Ousmane Sonko jàpp naa ne ci élan boobu noonu boobu noonu la sénégalais yi njëkk a seen bopp lors des élections législatives la sénégalais yi njëkk a wane seen bopp lors des élections législatives et avec ñi nga xam ne yow yaa ngi leen tuddee c'est des c'est des c'est des ñu déposer ay listes ginnaaw loolu ngay doon dégg ay nit ñëw naan je soutiens Pastef les patriotes je soutiens Pastef les patriotes mën nga ci lim leader yu bari am na ñu nga xam ne nekkoon boor bee même ñu nekk woon boor bee non du tout surtout am na ñu nga xam ne nekkuñu woon ci beneen boor bi am na ñu nga xam ne ay candidat la ñu woon ci élection présidentielle yi ñu génn te nekkoon fi ay opposant xëy ne ñoom ci élection législative yi nekkuñu candidat mais Ousmane Sonko la ñuy jàppale Pastef la ñuy jàppale mën nañ ci lim ku mel ni Malick Gakou ak le grand parti Mamadou Diop Decroix Mamadou Diop Decroix jàlloo Lamine ak ñeneen ak ñeneen ñu décidé ne ñoom la ñuy jàppale Pastef kenn waxu leen ñëw leen kenn waxu leen dañ lay investir pour nga jàppale ñu la preuve ñoom ci bari investir uñu leen mais dañu gëm ne fi Sénégal tool division ak di fexe détourné wu de l'essentiel ak di jéem a opposé wu te amoo ay raison opposé wu politiquement amul bénéfice parce que nit ñi suñ leen falee sénégalais yi jox leen confiance gisuma lan moo war a tax ba ñépp ñu ñëw jàppale leen pour que projet bi ñu am pour un Sénégal développé projet boobu noonu ñëpp ñëw jàpp ci je pense que c'est élan patriotique boobu noonu la yenn leaders yi nga xam ne ils sont conscients des enjeux de l'heure comme ñu fi cité tout à l'heure ñëw jàppale leen. mais loolu dafa xaw a contredire li seen leader waxoon ndax moo fi ne woon euh, il y a longtemps ku ne fi nga ne woon ba mars na nga fa toog donc on n'a pas compris pourquoi législative yi euh, mu ñëw ànd ak nangu. ñii ànd foog nga foog nga foog foog ñu dëppoo ci benn affaire. Hmm. man su ma xëyee ma ñëw ma ne man candidat la damay dem ci élection pour nekk député ma ne man ñii lay àndal ñii ñoom laa bëgg ñu nekk député ci yéen laa compté ci yéen laa yaakaar ci suñu parti ak suñu levier parti ak suñu appareil électoral parti ci la ñu yaakaar. mais su keneen ñëwee moo xam langue goo mën a jóge moo xam da nga nekkoon ci opposition bi moo xam danga nekkoon ci ancien régime bi nga ñëw ngay dama leen jàppale. naturellement tey gisoo ci Ousmane Sonko kenn Pastef bind un communiqué pour accueillir à bras ouverts ñenn ni nga xam ne ñoo ngi def seen déclaration naa nag nit su defee déclaration man en tant que acteur politique en tant que acteur politique su nit defee déclaration am ne damay soutenir. Hmm. gisuma lu war a tax ma ne ko noonu bul ma soutenir c'est contre-productif su ma defee loolu. maintenant li ci constant mooy lu Ousmane koo wax. ñëw di soutenir Pastef tekkul ne da ngay ñëw pour out refuse. Hmm. pour nga xam ne soo fi ñëwee ëllëg. soo amee lu nga xam ne da nga ko fi defoon nga war a layoo ak justice da nga fiy chercher protection nekkul ne kat soo ñëwee ne man Pastef laa jàppale woon bu subaa da nga war a xaar ñu nome la war a jox la post nekkul ne boo ne woon man kat dama ñu soutenir Pastef tey war nga xalaat ne bu subaa bu fekkee poste mairie moo la intéressé en 2027 Pastef dafa war porte sa sa sa sa sa sa candidature. Mm. jàpp naa ne loolu noonu yëpp nekkul ay conditions ñu discuter nekkul lu nga xam ne ñi ñëw ñu ngi koy xaar te Pastef tamit gëm naa ne. parti bu am doole la parti bu structuré la fépp fu nga xam ne fa la tegoon tànkam bëgg ak bëgg démb du ko wàcc ci surtout ci ay ñi nga xam ne moom ngee tuddee les transhumants. alors sur la présidence de l' assemblée ba tey euh, nit ñaa ngi ci débat dégg nañu ku mel ni Alioune Tine ak ñeneen ak ñeneen wax ne Ousmane Sonko dafa wax dem jiite ji assemblée nationale pour que dualité bi ñuy ragal au sommet de l' mu bañ a am lan moo ciy sa position en tant que cadre de PASTEF. quelle au sommet de l' état y' dualité au sommet de l' et que gëw ma ne dina am dualité au sommet de l'État c'est un duyo bu nga xam ne tey ñu ngi fii toog et que pour rappeler ci programme PASTEF euh, programme mu Diomaye président élection présidentielle bi incha allah bu ñu fi deux mille vingt neuf fekkee ba ñu war a demaat élection bu ñu mettre en œuvre ce programme la naturellement dañuy dem ci logique gu fal un poste de vice président. quelle était la motivation lan moo nekkoon la philosophie du président Diomaye et que moom il l'a rappelé et martelé encore plusieurs fois ci ay sorties moom dafa gëm avec conviction te loolu la gëm le président de la République a trop de pouvoir le président de la République a trop de pouvoir et que le fait que bi am trop de pouvoir